ginnaaw taw yu bare yu metti yi am fan yi te ñu ñàkk si ñetti nit yu faatu parce que xale ñoo ci gën a bare benn ci Sadel ci Fuuta ci Sadel bokk ci commune bu Bokki Jawe beneen bi nekk ci Cambérène ci Ndakaaru beneen bi tam nekk ci Yëmbal Nord ci département bu Kër Massar may tàmbali si di euh, jaal seeni mbokk di ñaan yàlla mu xare aljana ñi nga xam ñoo fi jóge di ko jaal réew mi yëpp ndax xam ngeen ni jamono ji ci àdduna bi li ñuy wax direglement climatique dafa am maanaam taw yi ni muy ñëwee ak doole ji muy ñëwee euh, dafay indi yàqu-yàqu yu bare bare d'ailleurs waa météo waxoon nañu ko ne woon nañu ci booru njeexitalu mois d'août ak début septembre taw yi gën a rëy yaakaar nañ ne ci jamono jooju di def situation journalière maanaam bés bu ne ñu joxe alerte yi bés bu ne ñu xool ak météo li war a xew surtout ñuy joxe recommandation bu taw yu mel noonu war a am nit ñi euh, mooy tëndeku tuuti waaye nag malheureusement yàlla def na euh, lii xew na kon damay jaale mbokk yi di jaale Sénégal yëpp euh, te di wax it ne ñun dinañu def kem kàttan pour di taxawu askan bi saa nekk.